dem fokk bari na nag maa ngi lay fay sama waa ji waa ñëw jàppale sama rakk rek sini suñu rakk la suñu xarit la doon nit ku am yar ku baax ku am reconnaissance première singalam première singalu sini man maa ko joué te fàttewul loolu benn yoon yaa ngi dégg cër bu kéemaane la ma jox ma delloo ko cër bi boo amee bés bu toll nii damay ñëw épaulé ko parce que mooy li may wax rek man instrumentiste la mais musique sénégalaise laay xeexal te musique sénégalaise ñëpp la instrumentiste bi la waykat bi la ñëpp la Sidy ak koo teg fi ko donc ñun ñi bëgg musique ñun ñi nga xam ne dañoo war a xeexal musique dañoo war a xeexal Sidy jàppale ko loolu rek la demee. maa la mën na nekk parce que cause bi may défendre nii ci la Wally nekk Wally musique sénégalaise moo ko tax a jóg defar ko parce que ku yokkul yaa wàññi. suñu papa yi ak suñu grand yi defar nañ ba mu naes ba fi mu mën a yem ñun ñoo war a ñëw ak suñu fula ak suñu jom dolli ñun it ba fi mu mën a dem Wally mi ngi teg ay mbirigam ñu ngi koy defee ni mu ko war gis na Sidi xam na ni Sidi ñu koy defee ni ko war a defee na mu ko jàppalee te te ak avant Zénith ak na mu téewoon loxoom ci penc ma dénkaane ko ni yéen farmaane ni dénkaane Sidi loolu ca la ne bu yàgg ba tey ni donc c'est la famille incha allah ñu ñaan rek fan si yeeg ñëpp ñi nga xamante ni tey ñooy bëggee artistes yi ñu xam ni artistes yi ay doomu ndey lañu showbiz nag léeg-léeg mu neex am yoo xam ne ay jeux yu demee noonu mais au fond ñun ñëpp on est des frères et waaw waaw waaw waaw la demee parce que mooy li ma wax léegi rek ñun dañuy représenter musique sénégalaise man en tant que instrumentiste damay fawee ay lekk ay menaces ak ay yeneen i bagages muy neex sénégalais yi. ñu gis ni kon lii war nañ ko mën a gën a jox valeur pourquoi pas ñuy dem ba instrumentiste di teg live di muy fees dell di woote ci salle yi di woote ci boîte yi dem yóbbu ko mercredi nga xam ne duñ joxe dara ay événement wu Ramadan ak waale incha allah loolu loolu moo tax di wax ni ñu ngi tous les mercredis caravane maa ngi invité parce que ay yendu la de vingt heures lay nekk ba minuit maa ngi ci invité yëpp ñu ñëw di ko teewe ñu ngi yi parce que musique sénégalaise lañ fay teewal dañuy dugg ci rétro yi dinañ dugg Omar Pène dinañ dugg Youssou Ndour dinañ dugg Thione Seck dinañ dugg fu nekk musique sénégalaise lañuy teewal wan loo ko jaajëf bi mbay artiste Omar laaj leen ko lu lu kii mooy BNC Sénégal. kii mooy. BNC Sénégal BNC. c'est bon. Nettoie la caméra avant. Merci. Let's go. Samba, c'est votre ménager, c'est votre ménager. Mais on ne peut pas dire c'est bon ah. ajo moo kenn doonal nii ñu ngi lay bu baax a baax la ñoo taxaw benn artiste boo xam ne bu mu ñëwee Sénégal yàgg loolu euh, waaye te bu duggee si maanaam si wàllu musique maanaam yàggul dara dara mais xam nga ni peut-être dégg na wolof bu baax nañ ko xool laajte salaamaaleykum. oui ça va. Euh, dégg nga wolof. waaw tuuti rek. tuuti rek waaw. noo tudd. Zenka. Zenka. Ça me comprend très bien. Alors Zenka, euh, Euh, vraiment, c'est euh, un de mes rêves, réaliser mon rêve, tu vois. Être dans un événement pareil avec des gens très importants dans la musique sénégalaise, comme Sidi Diop. On a invité euh, Viviane qui va aussi venir. Et euh, vraiment, c'est quelque chose que, que je voulais vraiment faire, en fait, dans toute ma vie. Faire des concerts avec euh, des grandes stars. de ça. Mm -hmm. Alors, euh, ça vous fait quoi euh, maintenant de venir ici au Sénégal, de découvrir euh, la musique sénégalaise Alors, euh, la musique sénégalaise, euh, j'ai déjà écouté depuis que je suis très petite. Moi, j'écoutais euh, Viviane surtout, tu connais Oui. Viviane et Youssou Nour aussi. Ouais. Et, et, depuis, quand que, depuis quand que tu es dans la musique Depuis quand Depuis quand Depuis trois semaines. Ça fait pas longtemps. Trois semaines seulement Oui, trois semaines seulement. Tu as déjà des sons Ou bien... Euh, J'en ai deux. deux. Un s'appelle Make You Crazy, c'est en Wolof et en, en anglais. Et l'autre, c'est Yakofam, c'est en, en, Wolof. Et l'autre, c'est Hani, c'est en anglais. En anglais. Tout en anglais. Euh, tu peux nous sentir Yakofam euh, en fait, en ce moment, je suis un peu enrhumée, oui, quoi. Oui, oui, oui, je comprends, je comprends. Maintenant, est-ce que tu es prêt à faire des featuring avec euh, ton idole euh, Pourquoi pas avec Viviane Pourquoi pas avec Wally Balagosek ou bien même Siri Diop ah, Moi, j'aimerais trop. Mais la question, c'est si Viviane, elle veut faire un featuring avec moi. Euh, pourquoi pas bah, Il faut lui dire, allez lui dire ça. <laughs> Mais peut-être tu vas faire des démarches. Oui, peut-être. Euh, Viviane, j'avais un concert avec elle. Je l'ai Vu plusieurs fois. Euh, pas personnellement, mais j'ai fait des photos avec Viviane. avec son fils aussi. Euh, qui s'appelle Philippe Mou, je pense. Non, pas vraiment. D'accord, merci beaucoup. Dernier mot. Merci. Euh, Suivez-moi sur Instagram, African Princess. Sur TikTok, c'est Zenka. Et sur Snapchat, Maggie Dabos. Saaw bàyyi bàyyi. xooloo xooloo. yow bu daan kii Sidi moo dugg noonu. waaw du dëgg kay.